laqil lisaani waxlulan minhu luqad waj'alhu daakiran wa shaakiran abad waj'al kalaami raashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqmaana alxikam faliyah bilmustafa xayra shiyam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki daara ji bi ñëpp ñoo ngi leen di nuyu leen siyaara di beral nu yoog siyaar waa daara xikmatul yawmi xaaju ba juróom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 moo tax li mu am lépp bu ñu yaakaaree ne da koo am nii rek ci am naflaay dañuy nax suñu bopp ndax moom moo ñu waxal boppam ne maa ngi leen di yeekat ci ne ah coono bu bu métti boo xam ne mënuma leen ko misaal hmm, moom laa daj lu jiitu may am ngërëmul suñu borom nabaxtu ko maan ala kaddin bada li qablu an arori damu abada kon loolu lu lu lu lu lu leer leer la loole itam ci la daan yare ba tax na mag ñi ñoom ñëpp dañoo kay woon yitte sëriñ moor xaris yi ca xikkamam ya daf daan wax ne euh, rikkuwaay na nangeen am itte ci yoonu yàlla daal di wax ne yéen ndaw ñi fexe leen ba bu leen amuk jot mukk daal di wax ndaw lu amuk jot ku jóg jot ko teru jot kenn waaw moom sëriñ Mor xaris yi daana waxit ne li tax euh, nee naa kuy wut yàlla foo fekk kuy wut yàlla bu talee bokk rek du am waaw daana wax ne jaam bu jaam bu wut boroomam ñu ne am mu ne talut moroomam te ku am boroomam yëgut moroomam kon mag ñi yitt ju kawe juj lay amoon ci wut seen borom ndax dañoo dégg waxi Sëriñ Tuubaa jam wax ne isil muridu la yuridu abada xayra rida rahmani ay su qasada ba mu ñëwee ba ba wootee ba bañ ñëwi dafa leen wax ne ab murid kat warta yittewoo lu du ngërëmul yàlla waaw moo tax ci anam googu la doon yar di tërbiye tërbiye gu métti rawatina eh, ba muy doog a woote yoon wi ci Mbàkke Kajoor ak bi mu ñëwee Touba sañcub Touba eh, dégg naa ci sëriñ maam moo war a xam sa diine mu ne eh, sëriñ Balla May nee na sëriñ Abibu nee na ko sëriñ Abibu imaam nee na ko sancub tuuba dafa métti woon ci mag ñi lool ndax daawuñu lekk tuuti lañ daan lekk naan tuuti nelaw tuuti daawuñ noppalu lekk ak naan ak nelaw ak noppalu daanaka daawuñu ko def loxub dugub moom la ñuy jëfandikoo ak kubéeru ndox ba ëllëgati boo booleeg bay ak gor ak taxan ak jàng alxuraan ak jàng xasiida ak sikar waaw bu ñëwee sëriñ bi moo leen di jiite sikkar si nee na bu ñu nelaw nelawee tuuti ci guddi gi rek sëriñ bi daal leen di yee na leen pëkk pëkk na leen jóg leen ne leen leen ne leen jóg leen àdduna kat lu jar nelaw nekku fi waaw àdduna kat lu jar lu jar nelaw nekku fi waaw nga xam ne coono yooyu nag tax na bis maam borom saam woo leen di sëriñ Maam Mor moom soxna jaare woo leen di leen di leen ñaax ak di leen defal daal leen wax ne leen moom kat négut ba dajale leen fii di wuti lu leen añale waaye dafa am lu mu leen añale ba noppi doog leen fee dajale nga xam ne kon ñooñu ci coono bu métti ci lañ nekkoon moo tax tëluñu woon dara moo tax sëñ Bay la muy wax rek di wax ne murit kat warta bëgg ci àdduna lu dus as cagar rek waaye warta yittewoo leneen moo tax ca waxam yi neex day wax ne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 mu ak cant gën lépp loo man di gis na ngay sant kay muñ tawat nag ba ko na ngay sant xéewal di muñ jëpp lor ngirum gaay yi yàlla ngi ni soobu ko amaana nga gis gaay yi ñuy ree ko bég di sooxaale ay lor yu dul teggi ko dañuy dox di nëbboo ko nëbbi tawat te koo gis ci ñoomus cakar doy na ko lu dul doy du doy nag te lu doy di doy murit mbubb daal ak tubay doy na ko kon ñoom foofu fi la leen sëriñ bi jaarale woon te foofu lañu nekkoon moo tax ñoom tamit ah, am nañ ngërëmul sëñ tubaa am ngërëmul suñ borom tabaaraka wa taala ci ndiggante suñ fi nekk waaye nag yitte ju kawe moo leen ko may ak wan gannaaw àdduna kon nag nañ leen ca roy rek roy moom dana raw say moroom ñoo ngi santaat bu baax mbokki taalibe yi ci jàppale gi ñuy jàppale waa daara Hikmatul mi te lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir ñu koy liggéeyee Serigne Touba di sant bu baax ñi nga xam ne ni wax dëgg ñoo ngi ñuy jàppale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 billahi min alseytaani alrajim bismillahi arrahmani arrahim